dal leen ak jàmm yéen kaabi di libération ne waa ji di Abdoulaye Mamadou Ly enquêteurs nañ ko ba teg ko loxo yéen a kaabi ne Abdoulaye Mamadou Ly moomulee dafa xoj soxnaam sii di Acaaba ba mu sedd guy ci ay loxoom waaye la leen boole di bourse de sécurité familiale ma libération ne soxna sa di Acaaba moo ko am jëkkër ja di Abdoulaye Mamadou Ly ne lu tax soxnaam sa yégalu ko ne jot na xaalis loolee doon lu ko merloo ba mu faat ko ci anam yu doy waar mbaa yéen a nga ca am ca Goloya Tukulóor ca Podor ndax benn waaye bu naan Abdoulaye Mamadou Ly moo xoj jabaram bu naan Aca mu dee mbir bi nag ni mu demee maa ne koy nettali ndax lépp mu nga bàyyee ko ci bourse de sécurité familiale bu Macky Sall njiitu mi nga xam ne 80 000 francs yi muy njaboot yi nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw ndax borom kër gi daa jabar ji xaalis bi jabar ji lànk mu xoj ko mu dee mais da seet loolu rek dikkati naa dëgg-dëgg ñu ci na waar lool maam siidi Acaba la daal di xoj ba mu daal di faatu ci xuloo goo xam ne ñoom ñaar séq nañ ko ci bourse de sécurité familiale yi ak lu mën a am nañuy ñaan jàmm tey muslu ci seytaane